jërë ngeen jëf euh, mbokk yi nga xam ne actuellement euh, ñu ngi seetaan seen télévision euh, Leral TV di leen nuyu kenn ku ci nekk seen tur ak seen sant di jaajëfalaat aussi tamit ñi nga xam ne ñu ngi leeral point net ak Leral FM te ñu amaat mbégte amaat satisfaction ñëwaat fi nga xam ne moom mooy seen émission face ak comme ni ñu koy defee saa su ne ni ñu ko waxee rek émission face ak boobu dafa nekk émission bi nga xam ni danañ ci invité ku nekk danañ ci invité politicien bi invité ci homme religieux bi sportif bi invité ci aussi tamit entrepreneur bi comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu amaan mbégte euh, ñëwaat fi nga xam ni moom mooy euh, fi ñu war a ñëw quoi qu'on puisse dire fekk ci un fekk si un jeune bi nga xam ni je pense que quand on de Louga euh, mënuñu ko teggi parce que bàyyi na fi li nga xam ne moom mooy weewu tànkam ñu nar a waxtaanee aussi tamit ci actualité politique nara waxtaanee aussi tamit jaar-jaaram nar a waxtaanee aussi tamit fu dëkk bi toll ah par rapport ak li nga xam ni moom la ñuy waaj moom mooy les élections 2024 Euh, tey ñu ñëw seet ki nga xam ne moom mooy monsieur Mor Gueye Niang Mor Gueye Niang nag euh, quand on parle de lui mu nekk euh, jàngalekat nekk aussi tamit nekkoon aussi tamit le coordinateur Y'en au niveau de Louga tey muy def politique nekk ci parti bi nga xam ne moom la ñuy woowee PRP bi nga xam ni le président Déthié Fall moom moo ko jiite ñu nar a waxtaan ak moom Mor ginnaaw bu ñu nuyoog téléspectateur ak suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu sant su Leral ak Leral point net ñu ngi lay nuyu. waaw euh, asalaamaaleykum euh, Malick maa ngi lay nuyu. di nuyu téléspectateur leeral euh, Leral TV yëpp. Mhm. ñi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers seen plateforme yëpp. Mhm. que ça soit Leral net. Mhm. fépp foo xam ne rek nit ma nga fa di teewlu émission bi maa ngi lay nuyu di amu mbégte. encore une fois. di àndaat ak yow. ci ci émission bu mel nii. ndax je pense que comme ni nga ko waxee rek Louga dafa nekk dëkk boo xam ne ñun ñoo ko bokk. te olof dafay faral di wax naa ay nit luñ mën luñ luñ bokk mhm. euh, te mënuñu ko paccoo dañ koy pencoo donc je pense que pencoo boobu tey moo ñu fi indi bu ko mhm. defee ñu waxtaanee dëkk bi ak réew mi jërëjëf moo wax je pense que loolu moom moo nekkoon ci li nga xam ne moom mooy tey ni ko defee saa su ne seen émission parce que euh, mënuñoo waxtaan ak nit te xamuñu moom mooy kan ak jaar-jaar jaar yi te su doon posé li nga xam ne moom mooy la question à savoir euh, kan mooy Mor Gueye Niang lan nga ñuy tontu waaw euh, de façon très brève ndax mm-hmm. euh, je pense que présenter présenter wu. Mm-hmm. dina xaw a dina xaw a difficile ndax doomu aadama li ñuy faral di wax rek. Euh, saabu munta a fóot boppam waaye lépp loo xam ni xam nañ ko ci suñu bopp. Mm-hmm. mooy ñun ñi ngi judd luga yaroo fi màgge fi jàngee fi. jànge suñu suñu cursus scolaire ñu commencé ko école Grand Louga 1. bi ñu amee entrée en sixième ñu yóbbu ñu fële ci CEM Massamba Siga Diouf bi nekk montagne Altieri bi nekk montagne. Euh, bi ñu fa jugee euh, am suñu euh, BFM ñu yóbbu ñu lii Malick Sall comme tous les Lougatois à l'époque ku am sa BFM ñu yóbbu la lycée Malick Sall ñu nekk fa di jàng dem série L2 am suñu baccalauréat mhm. bi ñu amee baccalauréat dem université Cheikh Anta Diop ñu orienté ñu faculté bu ñu faculté de lettres et sciences humaines ñuy suivre département géographie mhm. donc ñu def foofu pendant trois ans quatre ans donc après ñu daal di def école normale bi génn nekk professeur actuellement di servir au niveau de du CM Modou Awa Balla Mbacké mhm. donc bi ñuy doogee Témar c'était en 2009 ñu tàmbalee ko Diourbel donc mhm. c'est c'est une occasion aussi pour ñun ñuy euh, marqué suñu affection ci dëkk boobu nga xam ni marqué na lu bëri ci suñu carrière mm-hmm. ndax fa la ñuy suñu suñu cursus professionnel ndax fa lañ commencé ci CEM bu ñuy wax CEM Grand Diourbel mm-hmm. bi ñu fa jógee nag en ñu affecté ñu ñu am affectation à Louga ñu ñibbisi comme ni ñu koy waxee ci CEM Modou Balla Mbacké mm-hmm. donc depuis 2016 ñi ngi foofu nekk fa comme professeur euh, euh, di fa jàngale français ak ak histoire géographie donc loolu mooy cursus scolaire bi ci wàllu dëkkuwaay man euh, doomu jullit la mhm. donc jullit ci yaay ak ci baay donc loolu c'est important mhm. donc nekk koo xam ne aussi taalibe murit la euh, loolu aussi euh, day am solo ci présentation bi ndax ku ñuy wax sañ Mahmoudan Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moutara mhm. moom mooy sama wasila donc donc ñu ànd ak moom ci daayira ja kër ga donc yu bari donc bu ñu jógee foofu it présentation bi mën na avancer xam naa mooy ci biir émission bi sax waaw ndax sur le plan Euh, citoyen mouvement citoyen am na rôle bu ñu ci joué woon. Mhm. bi ñu ca jugee sur le plan politique am na fu ñu nekk. donc de façon ramassée. Euh, mhm. Mor Gueye nit kooku la euh, ab Baye Fall la ab taalibe la. macha allah boo xam ni Louga la dëkk. fas yéene Louga lépp loo xam ni joxoon na ko ko ci ci ba muy nekk ndaw ci jàng donc mu ñaan yàlla delloo ko Louga. jërëjëf wax nga ci li nga léegi ci li nga xam ne moom mooy moom nga député tey gisoon nañ la fi yow nekkoon nga fi li nga xam ni moom mooy. Euh, le coordinateur du mouvement citoyen bu nga xam ne moom la ñuy woowee Y'en a parce que tey comme ni ñu koy waxee jóge nga de dellusiwaat fi nga xam ne moom mooy Louga sa dëkk tey gisoon nga dëkk bi nu doon doxe euh, nga ni tey il faut que ma def sama participation ci dëkk bi il faut que ma bokk ci ay mouvement citoyen yi nga xam ne moom moo fi nekkoon moom mooy Y'en a marre euh, moment boobu noonu lan moo la poussé woon nga jël li nga xam ne moom mooy la coordination de sa mouvement ak aussi tamit lan nga gisoon mu naqari ci dëkk bi ba nga ni tey il faut que ma teg ci sama loxo mën a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk dëkk bi foog ma jaarale ko ci Y'en a marre Mor euh, benn boroom xam bu bu mag bu ñuy wax Franck Fanon daf ni euh, nit ci wolof rek bu ñu ko mënee wax maanaam da ngay toll ci ci àdduna foo xam ni euh, boo jëlul sa ay responsabilité maanaam da ngay bokk ci ñi nga xam ni da ngay da ngay trahir wala da ngay da ngay continuer la mission ñun Euh, bi ñuy nekk bi ñuy nekk Diourbel mhm. euh, dañ doon yëngatu lu baax bien qu'on était des des des des agents de l'État mais dañ doon yëngatu ci ci li ñuy wax la culture urbaine mhm. parce que là-bas dañ fa nekkoon acteur culturel mhm. euh, di bokk ci yu bari di fa organiser bokk ci ñi fa daan organiser ci lu bari donc nekkoon en relation ak des fois les acteurs culturels ñu ci mel ne les rappeurs les ñi nga xam ne ñoo daan def ay break dance donc ñooñu ñu amoon ay relations yu étroites ak ñoom. Mhm. donc euh, ku wax aussi mouvement citoyen Y'en a xam pro euh, euh, maanaam proximité bi mu am ak cette cette jeunesse rappeurs yi ak ak ñi nga xam ne ñooy lay danseurs et cetera. donc à l'époque bien que bokk gu ci woon ci mouvement Y'en a marre mais j'étais très proche des rappeurs. Mhm. donc bi ñu bisee à Louga man je faisais partie de ces jeunes yi nga xam ne man dama jàpp dama jàppoon ni ndaw mën na xeex li muy xeex. te euh, du ko jaar ci bànqaasu politique man loolu laa gëmoon à l'époque donc euh, ma jàppoon ni euh, ci tolluwaayu ndaw donc mën nga nekk ak sa sa sa fougue de jeunesse mën nga nekk di def ay révolution di dénoncer mais bi ñu demee ba ba toll ci période boobu ñu ñibbi si Louga ñu xam ni kat Louga à l'époque soxla woon na taxawaay boo xam ne Y'en a marre war na ko taxawaat mm-hmm. parce que pour rappel Y'en a marre existé woon na à Louga avec les Wëz les Diop les Hamdine les yow mii mm-hmm. ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci mouvement Y'en a marre ni mi uh-huh. donc da am na sama benn affiche boo xam ne moo koy seetaan en may gis euh, ñu soloon ay kii Y'en à l'époque man j'étais pas du mouvement Y'en a ñoo ñoo ñëpp ñu nekkoon fii mm-hmm. donc ñu dem ba en certain moment ñu gis benn léthargie bu am cest à ñu gis ne mouvement bi euh, tegu na ci suuf. Mhm. te nit ñi war nañ ko mën a parce que sur le plan national gis nañ rôle bu am solo bu mouvement Y'en doon joué. mu tombé nag ak période bu sensible mu doon période ñu dugg ci rek ñu dugg ci Covid bi. Mhm. bi duggee ci Covid bi. Euh, ñu bokk ci ñi nga xam ni piloté woon nañ ay activité de sensibilisation yu baree baree bari mënuñu ko lim ci émission bi donc euh, sa masque sa kaaraange euh, euh, takkal sa masque donc yooyu yëpp ay slogan yoo xam ni piloté nañ ko au niveau de Louga mm-hmm. ànd ceeg la coordination nationale mm-hmm. donc ñuy dox di dox di dox di dox ba ci kanam nag ñu gis ni maanaam réew boo ci nekkee di nga dénoncé di nga di nga wax ni man kat ndaw laa lii laa bëgg ñu doxale ko waaye kat dañuy gis ni euh, euh, boo gungee ñiy def politique ba ñu egg misaal bi moo koy jël rek boo leen di gungee di ànd ak ñoom ci xeex bi bañ jub saal bi ñu war a toogee wala jël ay décision dañ naan yéen activistes yi yéen société civile yéen da ngeen ñuy xaar ci biti ñun ñu doxal bu ñu duggee ni lii lañu fa jëlee génnaat wax leen ko bu ngeen d'accord ngeen génnaat def contestation ma ni man euh, je pense que ñun dañoo war a bokk ci ñi nga xam ni ay ay ñu ñuy joxe ay c'est-à-dire comme ni ñu koy waxee rek ñu ñuy révolutionné wu ñoo xam danañ joxe ay point de vue mm-hmm. mais dañoo war a bokk ci ñiy jël ay décision donc pour euh, bokk ñi nga xam dañu war a jël bokk ci organe de décision yi ñun war nañu impliqué wu sur le plan politique donc j'ai j'ai d'abord li ma njëkk def mooy bi ma ko xalaatee rek ma xam ne lii àndul ak le mouvement Y'en a marre parce que xam le mouvement Y'en a ma xam ne c'est un mouvement apolitique mm-hmm. parce que mouvement bi kenn mënu ko politiquer voilà donc mën nga ci bokk peut-être nekk ci mais munoo ci nekk yor une coordination ba pare nekk euh, une personnalité politique. donc li ñu njëkk a def mooy j'ai appelé le coordonnateur muy Aliou bi nga xam ni maa ngi naqarlu arrestation bi nga xamante ni si ni teg nañ ko ci kawam. mboo mhm. euh, ko on en discuté donc mu ne ma Mor écoutez gis nga euh, Y'en a marre c'est un train boo xam ne mi ngi dem nit ñi dañuy yéeg nit ñi di wàcc mais dañoo jàpp ne rek kuy wàcc yàlla na fa ngay wàcc mu nekk train mu nekk pont mu nekk gaar bu. gaar bi gën ci yow. Mhm. donc ñu ne ko ñun c' est pas parce que dañu bëgg kite quitter le mouvement Y en a mais c' est que on a une autre vision. Mhm. donc te vision boobu dañu bëgg a continuer euh, suñu réflexion bi ñu amoon ci mouvement Y ñu continuer ko par la voie politique donc te loolu lañ nekk ci euh, bi ñu toogee nag ñu xalaat nii donc il fallait que ñu dugg ci politique moo tax ñu choisir la voie la voie ok est-ce que ci yoon boobu nekkoon na yoon bu euh, facile ci yow parce que nga quitté benn mouvement boo xam ne lu ci bëri mouvement de contestation la quand on parle de hip-hop quand on parle de euh, mouvement Y nga jékki-jékki ni tak def benn break ni tu fais tu vas faire de la politique est que nekkoon na lu yomb ci yow choix boobu aussi tamit bi nga koy def est-ce que euh, à part les Aliou Sané bi xam ne il moom moo ko moom moo ko yor ba tey est-ce que nekkoon lu yomb ci yow moo bon mën naa ni yomboon na yombul su ma nee yomboon na mooy parce que euh, mouvement Y'en a marre mouvement bu democratique la. ok mouvement la boo xam ni euh, nekkul dañuy takk kenn jëng ci baat naan ko da ngay def lii donc da ngay am sa opinion nga koy doxal parce que même ci biir mouvement bi noonu la nit ñi dañuy des fois ngay gis réunion yoo xam ne dañu koy amal nit ñi dañuy dañuy dañuy wax seen xalaat ba nga jàpp ni sax. Mm. dañuy dañuy xuloo donc c'est pour dire que c'est un mouvement très démocratique de par ñuy fale coordination yi. ni muy yéege ba ni ñuy fale le coordonnateur national donc koo xamul rek mën ngay critiquer sax mais c'est un mouvement très démocratique donc bu ñu demee ba am ci réflexion ñu ni euh, war nañ mën a jël beneen élan euh, boo xam ni danañ fa continuer suñu champ suñu combat parce que euh, combat citoyen pour man ak combat bi ma nekk continuité la dama nekkoon ci benn combat boo xam ne dafa am fu mu yam pour man am na limite te limite bi pour man war naa ko mën a jéggi dem ci beneen étape bi étape bi mooy dugg bokk ci ñi nga xam da ngay nekk ci instance de décision yi loolu moo ñu ci dugal su ma nee euh, yombul loolu la mais su ma nee yomb na it dafa am lu tax moo wax ni yomb na mooy parce que Y'en a marre aussi euh, euh, mouvement la boo xam ne man dafa nekk ci man pour dire mën naa kité le mouvement Y'en mais ci suñu xol Y'en dafa nekk ci ñun j'ai l'habitude de le dire parce que ça fait plusieurs mois mën naa wax depuis le début tey bu ñuy xool da ngay gis ni lépp lu ñu am ci wàllu euh, nit ñi xameel bi ñuy xameel ak yooyu yanamar ci yanamar lañ ñu ko xame mm-hmm. kon tey sur le plan politique bu ñu ci ñëwaatee du ma ni dana dana facile wala dana difficile mais je me dis que quand il fallait prendre une décision moi j'ai pris une décision et la décision que euh, j'avais prise à l'époque c'était de d'abandonner d'une façon ou d'une autre euh, cette contestation bi nga xam ni dafa ñuy jëmale ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, la voie des mouvements citoyens bu mel ne a dugal ñu ci la voie politique. donc continuité la pour man te continuité boobu ci laa nekk. ok gis nga moment boobu gisoon nañ la aussi tamit moment bi nga xam ni nekkoon nga a dafa nekkoon moment yi nga xam ne ay moment de risque la doon doon au niveau national. Mm-hmm. surtout Louga yi nga xam ni euh, ci fi nga fi lañ fi lañ dëkk ñun gisoon nañ aussi tamit ay décision ay engagement au delà de actes yi nga xam ne nga doon def des fois ñu am de état bi jël benn décision bi. bi nga xam ni mouvement du ci d'accord ñu gis la des fois ngay dem taxaw buntu nga nii da ngaa war a rencontrer ak le préfet directement wala aussi dem nga toog buntu préfecture ci la faisee moment boobu noonu est-ce que les gens disaient que ni est-ce que waa ji moom wér na est-ce que moment kii est-ce mm-hmm. loolu xalaatoon nga ci sa njaboot wala aussi tamit c'était moment pour pour xeex. xam nga euh, des fois réew ci période boobu sax lañ nekk pour dire vrai réew day toll foo xam ni euh, façon de contestation yëpp day am. Euh, nit ñi ñun ñaata leetre à l'époque lañ daan déposé préfecture mais dañuy xam suite bi suite bi mooy demande bi ngeen introduire pour marche wala pour sitting du fi am. du fi am mm-hmm. donc mm-hmm. Euh, ñun ñu gis ni amuñu beneen choix amuñu beneen choix bu dul euh, bi ci njëkk mooy bi ñu demee ci buntu préfecture. Mm-hmm. donc on était là donc à cette époque c'était trop difficile nag ndax. Euh, conséquences yi mënoon na bari mhm. mënoon na bari mais boo tollee ci xeexal sa réew je pense que da ngay da ngay da ngay da ngay lépp loo xam ne day jëm ci ay calcul yoo xam ne day nekk sa ginnaaw donc moo tax quand il fallait le faire ñun def nañ ko donc dem buntu préfecture toog ci giri yi donc euh, bañ fekk ñu fa expliquer ñu donc ba préfet mu am ay suite yoo xamante ni si yooyu yëpp euh, on était témoin de ça donc ci marche bi nga xamante ni aussi je pense que euh, euh, muy euh, bi ñuy doogay jàpp Ousmane Sonko ñun on était avec des jeunes du Pastef à l'époque mm-hmm. donc ñun on était des signataires man je peux dire que signataires yi man la woon ak deux autres yoo xamante ni si ñu ngi woon ci ci ci Pastef mm-hmm. donc te boobu j'étais pas encore politique mais j'étais dans le mouvement citoyen Y en a donc bu ñu ca jugee aussi am na yeneen du ci mel ne euh, asu soxna bi mhm. marche bi ñu doon def mooy quand la femme a été euh, bi mu amee subiree fii au niveau de l'hôpital euh, ba ñàkk ci bakkanam mhm. donc ñun aussi bokkoon nañ ci les initiateurs yi nga xam ne ñoom ñoo doon ñoo doon def kiiwu asu asu soxna donc bari na bari na yoo xam ne duggoon nañ ci donc te te dugg boobu dañ ci duggoon ak conviction ak ngëm-ngëm mhm. voilà donc te ci loolu lañ nekk ba léegi comme ni ma koy waxee rek ci continuité bi lañ nekk continuité bi mooy jóge ci étape bi teg suñu tànk ci beneen état boo xam ne jàpp nañ ni lépp loo xam ne ay jafe-jafe la nga xam ne doon nañ ko dund buñ yeggee sa càppaandaw ga dinañ ci am saafara. ok ci loolu euh, dañuy ñëw ci li nga xam ne def benn break par rapport à ça euh, nga nekk le coordinateur du mouvement Y'en a marre tey euh, Mor Gueye Niang mi ngi def li nga xam ne moom mooy la politique sànq wax nga ko bi ngay débuté yaakaar nga ni tey li nga bëgg def yëpp ci sa dëkk ci sa réew ci politique nga ko ci politique nga ko mën a jaarale bien vrai jaar nga ci en tant que le coordinateur du mouvement Y en a parce que da nga nekk ci li nga xam mooy cappaandaw ga pourquoi faire la politique lu tax nga bëggoon def politique wax nga ko mais aussi tamit euh, gis nañu aussi tamit le choix ci parti bi nga xam ne def nga ko parce que gisoon nañ ñu ci bëri euh, suñu daan génn rek dañ daan dem Pastef wala suñ daan opposé Pastef lañ daan gis mais Mor Gaye Niang dañ koo gis que ni moom bi muy bi muy bi muy euh, euh, quitté li nga xam ne moom mooy en tant que coordonnateur du mouvement Y'en a marre dafa dem fi nga xam ne moom mooy PRP bi nga xam ne président Déthié Fall moom moo ko jiitee pourquoi PRP voilà soit bu soit bu soit bu boo xam ni question bi dañuy revenir à chaque fois question bi revenir à chaque fois mais réponse bi aussi dafay nekk toujours ndax mm-hmm. euh, ñun comme ni may faral di ko waxee ay nit la yoo xam ne on est doué de raison donc euh, ñoo nekk ñu nekk nit ñoo xam ne aussi dañuy dañuy settantal di xalaat euh, ba ñu jugee ci ci ci mouvement Y'en a marre on est resté pendant une période boo xam ne période de break la woon donc il fallait taire il fallait observer il fallait fair un choix mm-hmm. et ce choix man l'habitude de choix bi ñuy jël dafa nekk choix boo xam ne dafa ñu war a engagé pour la vie donc il fallait ñu toog réfléchir ci donc il euh, y avait plusieurs opportunités pour ne pas dire que opportunité bii ñu jël rek mooy bu baax bi non mais li ñuy faral di wax ku def choix di nga éliminer beneen choix donc il euh, y a un grand frère boo xam ne bi ñu doogee am bac à l'université dem fa def fa deux ans trois ans moom bokkoon na suñuy doyen muy grand Bekay Gueye mm-hmm. Bekay Gueye actuellement il est en France fa lay fa lay fa lay jàngale fa la nekk donc euh, un jour il m'a appelé pour me dire euh, dama lay envoyé benn euh, kii nga liir ko xool ma ne ko c'est pourquoi mënu ma dugal ci lien bi ma dugg gis Euh, ci projet bi ñu amoon à l'époque pour la construction du parti républicain pour le progrès mhm. parce que moom il fait pas des membres fondateurs de ce parti là moom Bécaye mhm. donc parce qu'il était même le SN adjoint chargé des cadres du parti moo toppoon ci Abdourahmane Sall mi nga xam ne moo jiite parrainage bi tey mhm. moom Bécaye Gueye moo ci nekkoon moo ci toppoon donc pour dire après ma dugg ci lire j'ai commencé à m'intéresser sur euh, euh, politique parti bi c'est-à-dire vision bi mu ci ñan ñoo ko composé parce que c'est important donc bi ma xoolee j'ai vu que parti bi dafa y avait plusieurs docteurs ñoo xamante ni pratiquement leen ñor mooy science mooy xam-xam mooy li ñuy jël ñu koy jële ci point bi yóbbu ko ci point bale j'ai essayé aussi de suivre la personne de Déthié Fall ma suivre que cursus politique bi mu def depuis 2004 mm-hmm. mu commencé def politique il était avec le président sa Seck bi muy nekk ak sa Seck ba ba muy quitté Idrissa Seck musta pipe moo jëmale ko ci leader te aussi bokk na ci les hommes yi nga xam ne ñoo gënoon a fidèle quand il dit ni mës na moo jëm ko ci leaderam cela veut dire c'est-à-dire dama ni mosoo ko dégg maanaam mu am benn contestation jëmale ko ci à l'endroit de son leader te ñu bari loolu seede ñu nekk réew mi tey mhm. donc il était mu nekkoon euh, yoroon cadre yi fa nekkoon koy aussi yoroon secrétariat exécutif parti ba donc yoroon fa yoroon fa lu baree bari ci parti réew ma donc amoon fa ndomba tànk boo xam ne sax moo ko demoon ba fal ko mu nekk député donc ba mu demee ba à l'époque sa Seck ba mu toogee nii la vision du président Macky Sall paasewul jam ñaajo ñu dem ba sa Seck ba Covid ba jàllee mu ni pour mu euh, ñu mën a def euh, benn kii économique il va falloir que ñu ñëw jàppale euh, le président Macky Sall donc président Déthié daal ni non man en tout cas li ma waxoon Sénégal yi daan ko combattre c'est pas parce que damay taxaw deux jours après wala un mois après ma mën a génnaat daan kat lii dama ciy génnaat donc moo tax euh, ma suivre qualité yooyu valeur yooyu nit ki am ces valeurs yi nga xam ni dafa xaw a rare ci un homme politique mooy ñoo xam ni bu ñu gisee pouvoir dañuy dem ci côté pouvoir bi mm-hmm. moom à chaque fois 2004 ba fi may waxee yow musul ànd ak pouvoir il a mm-hmm. toujours été du côté de l'opposition comme ni nga koy faral di wax du côté du peuple sénégalais du côté de la jeunesse moom ma gis ni kii kat euh, engagement bi mu am ak création parti bi mu nekk ndaw bokk ci les plus jeunes leaders politiques de ce pays là n'est-ce pas ak plus presque 48 ans nga koy wax ci nit 47 ans à l'époque tey ñuy wax 48 ans donc booy def euh, euh, wër ci leader politique yi dana néew koy gis koo xamante ne si ni moo mag le président Déthié Fall donc c'est un jeune ñu gis ni il est ambitieux il a des projets pour le pays donc ñun ñu jàpp ni kat euh, point bi ñu bekkaay souligné woon pour ñu xoole ko ñu def ci ay recherche nag parce que kenn dicté wuñu ñu xool ci def ci ay recherche xool bu baax ba xam ne lii doy nañu ñu daal di adhéré ci projet bi bi ñu adhéré ci projet bi euh, Bécaye aussi a tout fait ba ma rencontré le président Déthié donc il m'a rencontré ñu waxtaan échangé donc il a été très vraiment très très très content de ma recevoir donc ñu waxtaan ci lu bare bare bari donc mu am aussi ouverture mu am aussi euh, nekk nit ku am sens de l'écoute donc ba ma demee toog gis nit kooku laa gis donc je me suis dit li ma daan lire daan ko gis ci ay vidéo daan ko suivre même personne boobu laa fekk. ñi tey toog Mor du bàyyi dama lay euh, dagg foofu amaat beneen question bu ma la bu ma la posé par rapport ak ci réponse yi nga ma jox parce que moment boobu bi ngay quitté euh, bi ngay rejoindre li nga xam ne moom mooy parti PRP euh, vous aviez toutes les possibilités maanaam nekkoon nga jeune bi nga xam ni Louga tey loo bëggoon ci politique comme gars yi ni koy defee yenn ci jeunes ni ñu koy defee moom mooy essayer jege leader bi am ci am ci moom alal. maanaam ni koy defee ni koy parti au pouvoir di ko defee yenn ci leader ni ñu koy defee ak seen jeune euh, nga bàyyi fi loolu yëpp y avait aussi tamit euh, l' opposant monsieur Ousmane Sonko mi nga xam ni il était là avec ñi nga xam ne ñu ma fi nekkoon parce que moment boobu euh, Déthié Déthié Fall n' était pas bien connu quoi qu'on puisse dire mm-hmm. nga bàyyi loolu yëpp def choix wu Déthié aussi est ce que tey loolu noonu tey par rapport ak cursus boobu nga gis ci moom ak engagement ak maturité bu nga gisoon le président le président Déthié Fall moom moo taxoon wala waaw mooy parti au bu fekkoon dañ doon bëgg lu yomb rek wax dëgg yàlla comme ni ko jeunes yu bari defee euh, te aussi man leen koy nangul nag pour man seen ay choix la euh, choix yooyu ñu def peut-être euh, du ma ni choix bu baax la wala bu bon mais nit ki da nga koy nangul ay choix ñoom choix yooyu ñu def pour man c'était des choix à faire ils l'ont fait man aussi ge j'ai j'ai eu à j'ai eu la chance ma ma bokkoon ci mouvement bu ñu wax Y'en a marre mm-hmm. kon dafay am lu bari loo xam ni dootul mën a foq suñu bët comme ni ñu koy waxee xaalis mais aussi du ci wàllu euh, taxawaay parce que mouvement Y en a marre amul taxawaay bu mu amul ci réew mi. Mhm. amul tax xeex bu ñu xeexul ci réew mi en 2011. mais bu ñuy wax tey ya a une alternance en 2011 c' est parce que y' a un mouvement qui s' appelle Y en a bu existé woon. boo xam ne nit ñi bu ñu bëggee toog naa dañuy def France def lii donc moom moo leen génn nañ ci salon yi ngeen dem ci mbedd mi. donc euh, ba le président Abdoulaye Wade à l' époque on se rappelle bi muy dugal ticket bi mu génne ko loolu lépp c' est parce qu'il y avait un Y en a kon pour man sur le plan de des contestations amul dara loo xam ne war na foq suñu bët te ñu bokkoon ci mouvement Y'en a mhm. ci wàllu alal aussi comme ni ñu koy waxee rek amuñu alal nekkuñu ku juddu ci famille bu am xaalis mais dañoo bokk ci ñi nga xam dañoo gëm ni politique conviction moo koy def ngëm-ngëm moo koy def mhm. mais aussi ci ngëm-ngëm boobu da ngay am foo teg sa bët pour mën faa yegg donc te ñun suñu bët wax dëgg yàlla fi ñu ko tegoon moo doon ànd ak le président Déthié Fall ngir mën a bokk ci ñi nga xam dañuy soppi réew mi donc c'est pas parce que on a choisi Déthié Fall que les autres ne sont pas ne sont pas ne sont pas des personnes yoo xam ne mën nañoo ànd ak ñoom mm-hmm. mais pour dire que euh, li ma waxoon tout à l'heure quand tu fais un choix il va falloir que éliminer mais le choix que j'ai fait je l'ai réfléchi je l'ai réfléchi ma ko réfléchiré j'ai su que jusqu'à présent tey dana néew koy taxaw nga ne ko mankat ki ma àndal ci politique Déthié la tudd sant Fall muy la ah sa leader boobu kat teg ci leneen donc kon bokk na ci man leader yi nga xam ne jàpp naa ni c'est un leader qui est très respecté dans ce pays là mhm. c'est un leader boo xam ne am na lu mu gëm te sénégalais yi xam nañ ci dara c'est un leader boo xam ne depuis le début ba léegi musul transiger ci ay valeur am musul transiger ci benn principe boo xamante ni siin am na ko donc kooku man su ma ko gisee ma jàpp ci ànd ak moom politique même si n'est pas trop comme ni ñu koy waxee mais je me dis Euh, politique bi muy doogee tàmbali quand on prend l' exemple du président Macky Sall tey mi yor réew bi muy doogee commencé ci benn euh, Mercedes la commencé woon ànd ak ñeenti nit donc c' était ça la politique tey nag bu ñu demee ba toll foofu ci choix c' est pas dañuy xool ku ku ëpp nit wala ku gën a populaire mais ñun ki nga xam ne politique am gëm nañu euh, convaincre nañu ki nga xam ni vision bi mu am ci réew mi ñun liir nañ ko te gis nañu convaincre nañu ñun kooku lañ ci àndal te kooku ñu gisoon à l'époque c'était le président Déthié mm-hmm. ci loolu noonu gis nañu aussi tamit euh, euh, yow ci sa wàllum bopp ki nga xam ne moom mooy le euh, le président Déthié Fall tax nga tey ba région de luga ñëpp ñu ci bari ñu ko minul woon sax xam nañ ko est-ce que liggéey boobu nekkoon na liggéey bu yomb ci yow en plus de ça tey ñi ngi waajal li nga xam ne moom mooy les élections yaa ngi ci li nga xam ne moom mooy ñi ngi ci. parrainage yi yow yaay le coordonnateur euh, des parrainages au niveau di du euh, maanaam euh, de la région de Louga quoi qu'on puisse dire est-ce que maanaam liggéey boobu noonu nekkoon na liggéey boo xam ne liggéey bu yomb ci yow wala aussi tamit tey préparé woon nga sa bopp à l'avant voilà donc mënul mënul yomb mënul yomb ndax quand on était bi ñu doogee démarrer on peut dire que bokkoon nañ ci ñi ñi fi jiitu ci ci Louga Mm-hmm. donc y avait y avait am na ñu fi nekkoon mais pour dire vrai euh, li tax parti bi dugg ci coalition Yewwi Askan Wi au niveau de la région au niveau du département ñu koy commencé bàyyi xel ci les réunions au niveau de coordinations de la coordination de Yewwi au niveau départemental au niveau régional c'est parce que ñun ñoo nekkoon présent à cette époque là mm-hmm. donc bokk nañ aussi ci ñu ko yóbbu ci gox yu bari mën nañ ci zone yu bari bien que am na ñoo xam ni ils dëkkuñu ci départ dëkkuñu ci commune bi mais ils étaient dans d' autres mm-hmm. donc ñooñu aussi ñu fekk leen ci ñu ànd ak ñoom maillage bi xaw a gën a facile. donc euh, euh, tey bu ñuy wax commune Louga dana néew commune booy dem doo fa fekk euh, responsable parti républicain pour le progrès donc liggéey la boo xam ni yombul woon nag parce que comme on a l'habitude de le diir boo nekk ci opposition dangay ngay da ngay liggéey ak ngëm-ngëm da ngay liggéey ak conviction mm-hmm. donc te néew na ci gox yooyu dem euh, ak politique bi léegi ni ko commencé yàqee mm-hmm. nga fay wax waxi conviction waxi ngëm-ngëm donc dana am euh, beneen beneen beneen bët bu ñu lay xoole donc mais metti woon na mais ñi nga xam ne am nañ ngëm-ngëm te aussi xam nañ président Déthié Fall toujours boo leen expliquer donc ñuy def petit à petit ba tey sur le plan régional mën nañu wax dana néew commune booy dem doo fa fekk euh, le parti républicain pour ci loolu noonu gis nañ aussi tamit par rapport ak parti bi nga nekk Euh, ñëpp nitu jàmm nga quoi nañ ko wax yow nitu jàmm nga barki Demba Ndiaye lañu fi fekk euh, sa oto sa buntu kër ñu toj li nga xam ne moom mooy pare-brise bi est-ce que yaakaar nga ni euh, politique jar na ko ak maanaam jëf ju bon jooju noonu est-ce que mos nga ko woon xalaat tey Mor su duggee ci politique wala tey lii nii xaaroon nga ko ci li nga xam ne par rapport ak sa sa jaar-jaar. mais nag gis nga Mika politique man damay faral di wax ni boo ci xasee ba engagé wu da dana néew loo xam ni. doo ko ñàkk di bañ a mm-hmm. euh, man euh, mën naa ni du politique moo ma may li ma am ci oto wala ci kër gu ma nekk loolu du politique moo ma ko may mm-hmm. donc te aussi man bëri na ñoo xam ni ci sur le plan humain dañuy doxalante mm-hmm. man ak ñoom bokkuñu ay gis-gis sur le plan politique ñi ma gën a di xamanteel ñi may gën di toogal di waxantaanal on ne pas du même parti politique des fois même bokkuñu sax gis-gis ci wàllu politique mais euh, toujours et il que dañuy am sax des fois complexe ñun ak ñoom ñuy dem ci parce que j'ai l'habitude ma koy wax euh, des fois des difficile si man sax may dem ci yenn plateau yi parce que ñu bari ak man relation yi ñu am moo tax ba ñu ci bari débat yu bari duñ ci mën a duñ ci mën a sori ñeneen ñi politique moom da bëgg di dëgg da ngeen bëgg di dóorante waxante mbëkkante fëgg table bi te ñu bari du am yi quoi loolu ñu loolu lañ gis ci politique te man ma jàpp ci ñu gëm ni Euh, politique waxtaan la ay idée nit ki génn ay xalaatam war ko wax mais violence bu demee bu dugg ci euh, man j'ai l'habitude de dire que violence amul place am ci fenn mhm. muy ci sport muy ci politique muy fenn violence amu fa amu fa place am donc j'avais l'habitude de me avec sama oto falaa daan dem su may dem di euh, enrôler ay parrain ci laa ko daan def sama oto ci laa daan teg samay parrain ci ñëpp di ko gis mhm. pourquoi pas est-ce que du loolu moo doon objectif bi c'était pour euh, ñëw xool suñuy parrainage parce que à l'époque ñu ngi doon enroulé ñun bokkuñu si ñuy jooy ay parrain. ñun ñi jooy ay parrain. no ñun ah, au niveau su ma nee bokkuñu si ñuy jooy. ay parrain ah, kon dafa kon cela veut dire que am na ñuy jooy ay parrain. quoi non mais am na ñoo xam dañoo ay difficulté ah, pour enrôler ay parrain. Mhm. mais au niveau de Louga man je me dis que ñun on n'a pas ce problème là lu ñu am ci parrainage ñu ngi koy dox te nit ñi nga xam ni jox nañ ñu confiance ak ñi nga xam ni jox nañ confiance président Déthié Fall fu nekk lañ ñu woowee je te gis nga sama numéro bi ko président de ci dugalee ci page Facebook am. Mhm. joxe ko parmi les quatorze autres régions ni numéro yi ku bëgg a parrainer mais bul xam ñaata nit ñoo lay woo ci service yi au niveau de mhm. Louga. Mhm. que ça soit ci tribunaux yi que ça soit ci euh, euh, kii DGID euh, yi direction impôts et domaines yi. donc ci fépp nit ñi dañ lay woo. ni la sa numéro dama ko gis ci page yu de ci dama bëggoon nga jaar sama bureau ma parrainer la et loolu. kenn xamul nu mu toll. Mhm. donc pour gis ni nit ñi ñu ngi am benn vision bi ñuy am ci président Déthié. Mhm. donc ci loolu lañ nekkoon ci liggéey boobu ñu def lancement parrainage bi deux jours après donc ñu gis loolu xew dal ci suñu kaw ñu jàpp ni rek nattu la te euh, politique. bu dee politique la politique jaru ko. Mhm. Euh, ak lu mënti doon violence amul place am ci ci ci ci politique. ok gis nañ aussi tamit sur le plan national euh, li xew ci Sénégal ñi ngi jël nit ñi di jàpp tëj. ay euh, euh, maanaam au fait comment ay président ay nit ñi nga xam ne dañuy jiite ay partie ak ay nit yi nga xam ne dañuy wax seen xalaat ay fépp ci Sénégal gis nañ leen dafa nuroog Sénégal li nga xam ne moom lañ ñëw Sénégal réewum démocratie lañ daan wax ay dëgg dafa nuroog démocratie Sénégal boobu noonu dafa commencé wàcc wala nit ñi respecté tuñ ko est-ce que tey Sénégal mérité na lii est-ce que tey politique jar na lii est-ce que tey falu jar na lii tey par rapport ak nit ñi li nga xam ne moom mooy état bi li muy jël di ko dal ci li wàllu askan bi ak nit ñi nga xam ni dañoo am seen i droit pour wax pour que Sénégal mën jëm ci kanam moor waaw nga man ni ay euh, bi ñuy dogee démarrer suñu mouvement dañ ko démarrer ci ci révolution ci ci contestation te te ma jàpp ni euh, contestation ku ko wax euh, di ko wax ci dëkk boo xam ne dañoo war a bàyyi nit ñi ñu ñu xalaat. Mm-hmm. parce que aussi suñu constitution mi ka daf ni euh, nit ñi bu ñu bëggee bu ñu amee lu leen metti nañ ko manifester. Mm-hmm. nañ ko manifester ci lii ci lële wala ci lële mais ci ñett yooyu yëpp constitution bi tegal ñu bu fekkee da nga faa bëgg teg ni nit ñi duñ ko fi waxee ci lenn bu boobaa. démocratie bi nga xam ne dañoo jàppoon ni réew mi dañ koo xeex parce que aussi Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ni démocratie bi mu am daf ko xeex. Mhm. démocratie mi daf ko xeex parce que aussi il a fallu ñu toog ay années euh, Sénégal nekkoon dëkk boo xam ni sur le plan euh, de la colonisation dañ ko coloniser woon. ay nit xeex ba Sénégal moom boppam. Mhm. ay nit xeex. ba multipartisme am parce que à l'époque da ngay nekk parti unique moo fi amoon mhm. donc da bokk ci parti bi wala nga bañ caa bokk donc ñu dem ba multipartisme am ñu dem ba tey ku xalaat ni Sénégal ñu ngi ci plus de presque 400 500 partis politiques nga mën a jàpp ni réew moomu dañoo teg ay pas pour jëm ci démocratie mais duñ ñëw ba 2022 2023 ñu jàpp ni kat loolu nga xam ne amoon nañ ko ci ay acquis démocratique muy nit ñi bu ñu daan contesté tout à l'heure j'ai l'exemple de Y'en en 2011 mm-hmm. mais Ablaye Wade bi bi bi ñu nee dañuy manifester contre le ticket euh, bi nga xam ne dañu woon ko am 25 pour cent bu amee 25 pour cent mën na raw gàddu bu mën na dafa joxoon autorisation mais autorisation bi daf ko joxe ba buntu assemblée nationale mhm. tey fi ñu naan foofu kenn mënu fa kenn waru fa manifester mu ne ñi ànd ci ticket bi nañ taxawee ne ñi ci àndul nañ taxawee ne pour man loolu mooy euh, euh, démocratie bi ñu war a wane ci ci réew mi mhm. sénégalais bu ñu amee lu leen metti ci wàllu dund gi ñu xeex ko bu ñu amee lu leen metti mhm. ci wàllu euh, maanaam injustice ci wàllu justice ni muy doxee mais ñu génn wax ko sénégalais yi ci courant bu cher ñu génn wax ko mais boo leen bëggee naj seen kër yi li ñu naan boo bëggee condenser loolu lépp ci benn marmite finalement day exploser mhm. donc te loolu moo commencé dal ci réew mi mooy nit ñi fu ñu jug wax te état jàpp ne nag fi ñu toll ku wax loo xam ne jàpp nañ ni ku wax arrangé état lu arrangé état ñu bàyyi la nga dox ci soxla mhm. ku wax loo xam ne aussi euh, naka sudul noonu la ñu jàpp la donc je pense que loolu moo war a jeex ci réew mi ndax état de démocratie lañ nekk mhm. bu ñu waxee mooy réew moo xam ni nit ñi dañu am liberté d'expression donc liberté d'expression mi ngi tàmbalee ci télé bi télé bi di teg ay émission ñu bañ ko dagg télé yi di def seen ay émission ñu bañ a dagg censuré donc je pense que foofu la Sénégal jëm te foofu lañu war a gisee Sénégal mais tey bu ñu demee ba toll fii ñuy wax ci yenn problème de démocratie je pense que jafe-jafe la donc mhm. moo tax man euh, damaa bokk ci ñu gëm ni dañoo am benn recul démocratique boo xam ne ñu ngi commencé dund te avancé lañ doon xaar avancé mooy le président Macky Sall bi muy toog en 2011 c'est parce que dafa am ñu xeexoon ñu xeexoon xeex bu metti xeex boo xam ne ay bakkan dañ ci rotoon Mm-hmm. on se rappelle de Mamadou Diop. Mm-hmm. ay nit ñoo xamante ni si ni ñàkk nañ ci seen bakkan ay nit ñoo xam ni lu ne dal na leen si ba tey moom mu nekk ci bopp réew kooku ñu jàppoon ne mu ñëwee toog ci bopp réew mi kat lu baree bari lu xewoon danañ ko gën a yokk danañ am ay avancé mais du ñu am recul démocratique donc malheureusement pour ñun de 2012 jusqu'à présent euh, avancé yooyu ñu doon xaar ci moom je pense que lu ci bari recul la la mujj jur donc mm-hmm. moo tax tey ñu jàpp ni il est temps que muy moom bien que c'est déjà ficelé moom mënatul a nekk président de la république ku takk ci moom aussi ñu jàpp ni continuité nga bëgg ci réew mi ñoo ñëpp dañ leen war a jëlee ci bopp réew mi mm-hmm. donc muy moom muy ku taq ci moom ku mës a bokk ci moom képp koo xam ne jàpp nañ ne laale nga ci nguur gu ma Sall mës a bokk koo ko ñooñu war la ñu leen dénk réew mi parce pour ñun montré nañ seen ay limites waree nañ fan lañ mën a yóbbu réew mi te je pense que loolu rek lañ ñu mënal réew mi donc pour man lo foofu lañ toll te démocratie bi war nañ ko gën a mën a améliorer te amélioration démocratique boobu am nañ ci ay propositions yu pertinentes yoo xam ne président de ci suñu la déggee nga xam ni euh, ku taq ci moom koo xam ne mos naa laalee li nga xam ne moom mooy nguuru Macky Sall euh, kooku ñooñu noonu euh, ñu leen mën a dénk réew parce que dañ joxe exemple bien vrai que am na ñu mu àndal mais am na ñoo xam ne nekkoon nañ ci ñoom Euh, mais euh, di wut nañ seen yëfi bopp est-ce que yaakaar nga ni euh, nit ñooñu noonu nekkuñu di liggéey ak Macky ba tey. non man dama dama dama dama gis ni cest à li xew ci réew mi dafa mel ne Sénégalais dañ ko commencé di gëm lànk ni duñ ko gis ndax mënoo nekk un premier ministre pendant cinq ans ci benn gouvernement. Mm-hmm. nga nekk un premier ministre pendant cinq an ci gouvernement jël décision yu gën a extraordinairement contesté mm-hmm. ci nguuru Macky Sall tey nga bëgg a génn. ni da ngay opposé wu contre ce régime là man je me dis bu ñuy éliminer ci candidats yi pré ñi nga xam ne ñoo war a dem ci urne yu voté war nañ leen a ni kii di wax naan président Macky defu fi lii ak lii moom ak moom nekkoon na premier ministre am pendant juróomi at. bokk na ci li nga xam ne aussi euh, le président Macky wax na ko quand diika dit euh, Amadou Ba pare pour le citer continuité la. ci ci ci li mu nekkoon def. kon ñun bu fekkee nangu nañ ni réew mi mi ngi dox. su le plan démocratique mu ngi dox euh, dund gi seerul euh, courant bi seerul lépp baax na bu boobaan nañ continuer ak Amadou Ba. Mhm. mais bu jàppee ne loolu baaxul dañu war a sanctionner ce régime. te ma jàpp ne sénégalais doyal ci régime boobu moo tax tey lii xew lépp xew donc sénégalais yi pour man euh, régime bi daal waxatuñ lu ci jëm. donc mhm. te incha allah février 2024 sénégalais yi dinañ conscient jug dem ci bureau de vote yi voter contre. pour pour dire pour ne pas dire sanctionner mais voter contre ce régime et voter contre ce régime mooy voter pour contre toutes ces personnes yi nga xam ni jaaroon nañ ci régime mu Macky Sall mhm. man loolu laa gëm. Euh, par rapport ak ci li nga xam ne moom mooy euh, euh, tolluwaayu PRP gis nañ ki nga xam ne moom mooy le président. Euh, Déthié Fall moom rarement lay génn actuellement nii euh, yéen ki li nga xam ne moom mooy euh, dajale parrainage je pense que tey fan ngeen toll fan la liggéey bi toll est-ce que la ngeen préparé ak aussi la moo nekk la mu nga xam ne moom mooy la suite par rapport ak seen seen jëmukaay. voilà donc bi ñu lancé le parrainage président Déthié dafa woote séminaire xam nga j'ai l'habitude de diir parti bu organisé bu mel ne PRP peut-être li ba deful parti yu bari la mm-hmm. mais dana néew nga visiter doo di ko gis dañu organiser séminaire pour pour ñu avant ñuy ñëw ci parenage bi euh, bi cadre yi organisé woo bi président Déthié ne dafa bëgg a nekk candidat li ñu njëkk a def. Mhm. mooy nañu xool naka la ñuy def ba proposer un programme. un programme parce que li ñu daan am habitude du gis mooy nit ñi dañuy fay ay consultants ay cabinet de consultance ñu bindal leen programme boo xam ne tey boo leen woon ci télé duñ la mën a wax programme bi lii ak lii fii la jóge fii la jëm. donc mais programme président Déthié il y avait plus de 300 cadres man j'étais présent à l'époque euh, donc ñu defee ko Radisson Blu ñu toog fa am fa ñetti fan yoo xam dañoo lalu di bind ci programme bi maanaam point boo xalaat ci luy doxal réew nit ñi xalaat nañ ko bind nañ ko ci ay pôle lañ ko defoon ñii xalaat ci urbanisme ñii xalaat ci euh, secteur primaire agriculture élevage pêche ñii xalaat ci industrie ñii xalaat ci euh, microfinance ñii xalaat ñii xalaat ci économie ñii xalaat ñëpp ñu boole xalaat yooyu yëpp tënk ko def ko proposition mu nekk euh, axe programmatique boo xam dafa am doole. Mm. muy euh, programme boo xam dañ ko tuddee un programme pour un Sénégal bon à vivre et beau à mm. donc ñu proposé ko euh, le président Déthié am kii ko approuvé ko pour wane ni war nañ ko mën a proposer au Sénégalais tey ñu jàpp ni réew mi dafa toll foo xam ni waratuñ di waxtaan sax ci ay débat politique li ñu war a proposer les Sénégalais mooy bu demee ci débat yi Sénégal fii la toll. fii lañ ko bëgg a jëmee nar lañ ko fay jëmale donc ci loolu je pense que programme moo koy wane te bu ñu eggee ca campagne ba sénégalais dañ xam ne le président Déthié am na programme bu am solo bañ ca jugee mu defaat séminaire pour préparer parrainage bi bu ñu lancé parrainage bi suñu borom def ñu nekk euh, numéro quarante mhm. numéro 40 avec lépp lu muy révélé numéro 40 nga xam ni numéro bu xaw a euh, mystiquement ça veut dire beaucoup de choses mhm. donc euh, pour 40 euh, euh, ans ci la ci la ci la ci la révélation bi tamal tàmbali sur le plan religieux mm-hmm. donc luñ ci mën a wax ci lu bari ñu jàpp ni kon révélation bi ak le président Déthié mën na am pour cette année donc feneen fi euh, mooy bañ ca jógee ñu war a def la restitution restitution bi on l'a fait avec tout la région nit ñi ñu woo leen je pense que le média médias étaient là ñu woo leen ñu wax leen lañ jëlee Dakar ak fan lañ bëgg a jëm ci objectif yi mm-hmm. donc depuis le début nag ñu ciy dox donc ñun ñu nekk di coordonner toute la région muy le département de Louga département de Linguère ak le département de Kébémer mhm. boo demee Linguère ñu am fa point focal euh, muy Kundul ma nga fa au niveau de Linguère ànd fa ñoom jigoo ñu fay def liggéey bu am solo mhm. nga dem au niveau de Kébémer fekk fu ñoom Amadou Mahoura Dieng ak ñoom Dame Babou ñu ngi fay def liggéey bu am solo man ma nekk ci bopp bi di coordonner toute la région mhm. donc ñu yóbbu suñ premier lot yóbbuwaat lot pour dire que Louga actuellement on n'a pas de problème de parrain ok donc ci def ba enrôler le maximum pour que sénégalais yi mën a xam kan mooy le président Déthié Fall ba bu ñu demee euh, ci élection présidentielle yi nga xamante ni si ci lañ jëm fañ war a tànnee président de la république sénégalais kat mën a jox réew mi ki nga xam ne mooy le président hmm. Déthié ci loolu euh, gis nañ euh, je pense que délai bi mi ñu waaj àgg ci délai ba hmm. ki nga xam ne moom mooy ki jiite parti Pastef le président Ousmane Sonko moom depuis bu loor hmm. mënul jot ci li nga xam ne moom mooy fiche yi coow li commencé na bari tey suñ la waxee ñu ni la tey Sonko dana bokk ñii ni la Sonko du bokk yéen ban jàngat nga am ci loolu Mor ñaa par rapport ak Sénégal fu mu toll nii est-ce que tey jarul ñu changer li nga xam ne moom mooy yenn ci euh, njiit yi wala jarul ñu changer yenn ci li nga xam ne moom mooy justice Sénégal dafa nuru justice à deux deux vitesses la alaaji waaw euh, depuis le début ah problème bi commencé wul fii. Mhm. mi ngi commencé ci bi ñuy doogay démarrer ak Yewwi Askan bi nga xam ni procès bi njëkk. kaw Ousmane Sonko muy le procès Sonko Adji Sarr bi démarré donc depuis ce début là mhm. gis nañ posture bi ci le président Déthié Fall mu nekk posture nit ku am kóllëre mu nekk posture nit ku am gëm-gëm ci loo xam ni kàddoom boo xam ne yëkkati woon na ko teg ko ci euh, kenn muy le président Ousmane Sonko mhm. on se rappelle Sonko aussi jëloon ay kàddu témoignages yu am solo à l'endroit du président Déthié Fall naa ne depuis le début du procès bu génn du décision bu génn te président Déthié contesté wu ko ak euh, yi dal ci kaw Ousmane Sonko yëpp. Mhm. bi ci mujj mooy bi nga wax léegi muy euh, refus bi nga xamante ni bañ nañ ñu duñ ko jox. Mhm. duñ ko jox fils de parti man ma jàpp ni maanaam euh, réew muy réew Sénégal mi ngi doo koy egg ci point bu doy waar point boo xam ni kum tiitalul jaratul ngay tiit ndax buñ demee ba ay décision de justice sax dañuy jàpp ni ay ay direction duñ ko respecté. Mhm. parce que quoi qu'on dise ñu yor élection yi direction la direction direct euh, moo yor wàllu élection yi mais euh, Sénat mi nga xam ne dañu ko dénk wàllu élection mu jël xalaat ni gis ni lii kat ñu bëgg a teg ci nit ki war nañ koo mën a bàyyi parce que euh, le président Ousmane Sonko liñ ko luñ ko war a nangul mooy dafa nekk un sénégalais. Mm-hmm. boo xam ne sénégalais yi dañ ko bëgg te aussi dafa war a jël ay fiches dem ci sénégalais yi wuti ay parrainage mm-hmm. comme tous les citoyens. Mm-hmm. tey on parle de plus de deux cent et quelques personnes qu'est-ce que ñu dit que parmi ces deux cent et quelques personnes moom rek lañ ci génne ni ko duñu la jox fiche de parrainage et pourtant boo xoolee si ñeneen peut-être am na leneen lu ñu mën a lu ñu leen mën a taqal wala leneen moom pourquoi ñu accroché wu ci moom donc je kon li ñuy wax rek euh, li ñuy dal acharnement bi ci kawam dafa bari donc mën nañ ko jox ay fiche am mu dem wuti ay parrainage am il n'est pas du bu direction générale des élections muy éliminer ay candidats parce que lii nii day wane ni déjà ñoom tranché nañ ci wàllu candidature Ousmane Sonko alors que tel ne doit pas être le cas dañ ko war a bàyyi mu jëli ay fiches de parrainage comme tous les citoyens ñu dem parrainer ji ñu koy parrainer parrainer ko bu déposer conseil constitutionnel validé ko ñu dem ci ay élections yoo xam ne ñëpp dañ ciy bokk parce que ñun loolu mooy suñu position. Mhm. position président de ci li mu mës a wax buy laajte ay élections ay élections libres transparentes et yoo xam ne ñëpp dañ ciy bokk war a bokk bokk ku warta bokk du bokk. ku war a bokk bi mooy ñëpp ñi nga xam ne remplir nañ conditions yi bokk ñu bokk te ñooñu je pense Ousmane Sonko def ci bokk mhm. ñi warta bokk c'était à l'époque le président Macky Sall te ñooñu lañ daan wax moom mi nga xam ne warul bokk bu mu bokk mais ñi nga xam ne war nañoo bokk ñëpp mhm. na leen bàyyi ñu bokk donc loolu moo si position donc je pense que dañ koo war a jox ay fiches de parrainage mhm. mu dem wuti ay parrainage comme tous les autres candidats euh, candidats ñu am bu demee ba sa yi kat nangu nañ ni kii parrainé nañ ko ñu bàyyi ko mu dem ci yi bu au soir du cinq février ku sénégalais yi tànn ne moo gën ci bopp réew mi ñu jox ko réew mi je pense que loolu mooy démocratie te foofu lañ toll mm-hmm. mais loolu est-ce que dana nekk euh, lu yomb parce que tey gis nañ dëkk bi tey nu mu fa demee euh, loolu da dana nekk ci yomb parce que euh, ñi waroon ñiy wax sax parce que tey Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni soo fi wax dëgg sax léegi dafay nekk actualité est-ce que on n'a est-ce que on a mérité saa est-ce que tey Sénégal lu démb Sénégal ak Sénégal lu tey est-ce que différence bi bariwul parce que dëkk bi dafa niroo dafa commencé yàqu euh, Alaaji Mor Gueye dafa yàqu ci domaine ban c'est-à-dire quand on dit par exemple à l'époque on se rappelle bu ñu daan dem ci le plan politique da nga daan toog suba gi ñu ne la euh, maam Abdou Aziz dafa war wax. wax ndeysaan ñu ni euh, woote na bu wootee. dal ci kaw gouvernement dal ci kaw opposition dal mhm. ci kaw magistrat dal ci population bi neen ni ngeen war a comporté woo bu ko defee kenn ku nekk boo jógee ca jotaay boobu boo demee nga sa sa taxaw sa toogaay mhm. bu amee toogeen bu ñaaw nga defaraat ko donc euh, tey bu ñu demee ba kilifa diine bu génnee am yenn position yu dëgg jëmale ko ci nguur rek mhm. mu nekk actualité on prend l'exemple de euh, sëñ ibra mbay mooy euh, doomu sëñ Saam la keroog bi ko Amadou Ba seetsee c'est la famille de Mame Cheikh Mbaye bu mu génnee wax déclaration bi mu def je pense que bi ñu xëyee suba dafa nekk presque à la une des journaux mm-hmm. et pourtant loolu pour man dafa waroon a nekk lu lu lu loo xam ni dafa war a booy ci nopp sénégalais yi mm-hmm. ndax Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni dafa bëri ay événement événement religieux donc kilifa yi aussi euh, nit ñu jox leen cër parce que ñun dañoo bokk ci ay ay ay famille yoo xam ni dañoo dañoo gëm mbiru kilifa diine mhm. te aussi kilifa diine yi ñun ñu jokk ci ñoom aussi am ñu am fu ñu leen teg mhm. donc ma jàpp ni rôle boobu ñu xam daan nañ ko joué kilifa diine yi bu njëkk daan nañ ko joué jëmale ko ci ñoom ak état jëmale ko ci ñoom ak population jëmale ko ñoom ak suñuy institution donc je pense que foofu la réew mi war a delluwaat mhm. donc euh, tey kon événement warul nekkati ci kilifa wax na dëgg wax na dëgg état donc li waroon a xew kay mooy état bu defee naka sudul noonu kilifa yi génn ni ko tegaat ko ci yoon population bu ñu jëlee ni ah li fii kat la war a jëm dañoo war a taal li def lii état génn wala kilifa diine yi génn leen lii kat war leen koo def je pense que kilifa diine tëddaay boobu la a tëdd euh, te euh, tey du ñu ni euh, ñàkk na fi mais est-ce que kilifa diine yi nekk ñu di ko def ci ñoo xam ne dañ leen a bañ a dégg mm-hmm. donc question yi ñu ci mën a posé dafa baree baree bari mm-hmm. ma jàpp ne rek réew mi moo toll ci defaraat mm-hmm. te bu ñu waxee defaraat Euh, fu ñu war a laal fu ne dafa bari. Mhm. donc je pense que bu ñu eggee sa càppaandaw ga Sénégalais yépp danañ xam ni kat bu dee kilifa diine yi jàpp nañ ni kat fii état teg tànkam waru ko faa teg ñu war ko rappeler à l'ordre mu mën a tegaat tànkam ci suuf donc foofu la ñu toll Ousmane Sonko daal li ñu ci mën a wax daal mooy du difficile pour ñun ndax droit moo ko ko may constitution moo ko may mhm. dafa war a bokk ci élection yi nañ ko bàyyi mu bokk ci élection yi mhm. muy choisir le président de la république à la place ñu ñëw ci euh, fi nga xam ne moom lañu dëkk au niveau de luga gis nañ li nga xam ne moom mooy euh, yenn taxawaay parce que Louga euh, dafa nekk dëkk boo xam ni bon jeunes yi bëri nañ fi mais malheureusement amuñu feeb fu nga xam ni foo lañ mën a jokk maanaam dem liggéey amul benn usine yi nga xam ne moom moo fi war a nekk par rapport ak euh, jeunes yi war fa mën a xëy ñaari usines ñoom ñoo fi nekk te yooyu ay mort silencieuse mort silencieuse lañ quoi comme puisse ñoo on parle de la Sonacos on parle aussi des SPA euh, tey est-ce que tey ñun état euh, fi mu ñu waroon teg teg na fa tey booy Jakarta moom moo fi am à un moment donné des a nga gis waa maire yi sonal leen wala aussi waa policiers yi sonal leen tey lan moo war a nekk jeune ci euh, taxawaayam ci dëkkam ak aussi tamit autorités yi lan woon war a taxawee li nga xam ne moom mooy la jeunesse. waaw man dama jàpp ni état dafa échoué ci politique de jeunesse bu mu am te échec bi ñu ngi ko commencé gis benn par benn xam nga on parle de xëyu ndaw ñi. Mhm. tey bu fekkoon ndaw ñooñu ñu ngi xëy duñ jël gaal yi. Mhm. ndaw yooyu bu fekkoon ñu ngi xëy. Mhm. duñu jël yoonu suuf bi di dem Nicaragua. Mhm. kon jàpp naa ni xëyu ndaw yi échec la tey ci état wu Sénégal bu fekkoon mooy politique de jeunesse. Mhm. bi ñu yaakaar. Mhm. pour mën a enrôler ay emploi aux jeunes je pense que am na échec boo xam ni moom lañ ci gis tey. Euh, kon euh, bu ñu wàccee ci diwaan bi ñu nekk gis nga euh, Louga du exception ci Sénégal. tey lii xew luga moo xew pratiquement dans toutes les quatorze régions du Sénégal parce que booy xool ministre de la jeunesse bu muy dem. di seeti ndaw yi ñu ci bari lu mu leen di proposer di leen jox ay jakarta mhm. pour dire comment le mal est profond mhm. comment le mal est profond bu fekkee emploi yi nga xam ne dañu jàpp nañ ko war a jox ndaw ñi dañ ko bëgg a jaare ci ay joxe nit ñi ay jakarta je pense que c'est mal comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat mhm. c'est mal comprendre lan mooy attente jeunesse bi jeunesse boobu tey ñoo jël seen ay jakarta jaayaat ko jël gaal gi ñenn ñi di si ñàkk seen bakkan ñenn ñi jël yoon Nicaragua bi di si ñàkk seen bakkan donc je pense que foofu la réew mi toll kon échec bi am ci Louga moo am ci pratiquement dans toutes les quatorze régions du Sénégal donc kon euh, Louga du du du exception parce que euh, sur le plan national ah sur le plan national rek lañuy ñuy ñu xam luga ni mel mhm. noonu la Kaffrine mel noonu la Thiès mel noonu la pratiquement toutes les autres quatorze régions du Sénégal mhm. mel donc euh, ñu dénk suñu suñu suñu suñu suñu gox yi ñu dénk ko ñoo xam ne ñu jàpp ne ñun ñun dañoo ñoom ñun lañ gëm mooy ñu ñu dénk suñu maire yi suñu conseil départementaux yi ñi ngi ko dénk mhm. muy luga muy euh, fu mu mënti doon ñu ci bari dañoo échoué mhm. parce que li jeunes yi di xaar ci ñoom euh, maanaam attente jeunes yi daf leen a raw pour ne pas dire dañoo archaïque c'est-à-dire dañu xaw a archaïque ci ay xalaat mhm. parce que ndaw ñi dañ leen raw ci lu baree baree baree bari bu fekkee dañoo jàpp ne ni ñuy euh, ni ñu koy waxee ni ñuy user population bi mooy di leen woo di leen jox ay yenn produit di leen jox yenn yi c'est pas bu ñu falee autorité c' est pour que ñu dégager ay pistes yoo xam ni dina permettre ndaw ñi ñu acquérir ñu dem accès au financement. Mhm. mën a entreprendre mën a créer des emplois. Mhm. parce que néewuñu maire bi na créer ay emplois mais na créer l' environnement boo xam ni peut-être dina ànd ak accompagner wala ànd seen conseil départemental ak seen ay euh, peut-être seen ay seen ay euh, bailleurs yu ñu mën a àndal. quitte à ce ñu financer ay ndaw ngir ñu mën a entreprendre quelque chose. Mhm. donc je pense que foofu la la ñuy xaar. accompagnement boobu nga xam ne moo waroon am moom moo amul. Mhm. bu ñu demee nag ba sa maire sax nekk un ministre de la république. de la je pense que foofu la gënoon a. gënoon a yombe a yombe mhm. ci dégager ay pistes yoo xam ne dina permettre ndaw ñi ñu mën a ñu mën a dem vers l' emploi. politique d' amu fii amul Louga Louga amul usine Louga amul lenn loo xam ne mën nañ ko fi teg loo xam ne ndaw ñi bu ñu xëyee kat sol seen tëni dañuy jubali foofu dem liggéeyi fa. Mhm. booy dem ci zone des Niayes bi da nga gis. yenn saa yi ndaw ñi dem ci tool yi jéem a da mais Louga ku xëy boo yorul Jakarta amoo sa métier doo li doo xëy mhm. li ngay xalaat mooy naka laay def ba dem tukki heureusement que ñun ñu nekk zone boo xam ne mhm. dëkk boo xam ni nit ñi ñi ngi ñi ngi solidarité seen biir mhm. ay immigré ñu ay émigré ñoo fi nekk donc di di solidarité seen biir di dimbalante mais bu loolu amul woon Louga tey je me je pour je ko dire Louga dina bokk ci gox yi gën a ndóol ci Sénégal mais heureusement que Louga tuwaay lépp lu ñu am Louga lépp lu mu am Louga toyee fi def mhm. muy Baye Jili la commencé lépp lu Louga toy tey di ndamoo Baye Jili la mhm. lépp loo xam ne sur le plan euh, de la belle vue la mhm. doomu Louga yi la Moodu Moodu yi la ñoo fiy tabax seen i kër ñooy def lii ak lële donc je peux dire exactement que donc kon Louga li mu am tey c'est grace au Lougatois donc mm-hmm. état defalul Louga loo xam ni war na mën a tax Lougatois yi joxaat seen confiance état bi fi nekk tey. Mm-hmm. ok euh, pour la pour terminer Mougaye euh, sama dernière question mooy euh, tey gis nañ moment bi ñu toll jeunes ñu ci bëri dañuy daw di song li nga xam ni moom mooy géej gi jël ay gaal est-ce que du manque manque manque li nga xam ne moom mooy moom mooy amatuñu li nga xam ne moom mooy yaakaar ci réew mi moom moo tax ñu koy def est-ce que tey arrêté loolu dana nekk lu mais mi kaa ñàkk ñàkk espoir sa réew la c'est-à-dire bi munul munul gën a mënul gën a gàtt loolu ndaw ñi bu ñu amul leen gënal dañuy toog ci réew mi euh, dafa waykat bu naan tukki neex na waaye ñibbisee ko dàq cest à kon lu waay dem dem boo soño dëgg ñibbisi mhm. kon nit ñi bu ñu amul leen gënal fii ci réew mi duñu fi génn mhm. mais ndaw ñi di jël gaal gi mhm. ngeen jàpp ni ñun ñoo leen gën a bëgg seen bakkan yi cest à dafa am lu lu doy waar loo xam dafa xew ci réew mi ñëpp di ko di ko di ko di ci di ci nës nësal mooy le mal est profond mhm. cest à li tax ndaw ñi de tey di jël gaal gi di jël yoonu suuf bi jëm Nicaragua li tax ndaw ñi amatuñ espoir ci seen réew mais loolu moo war a nekk les points de discussion mhm. mais waratul a nekk lan la ñuy def ba arrêté ko cest à lan la ñuy def ba kar leen ci géej gi la la dernière fois ma déggee ñu naan dañuy teg ay ay marine pour empêcher leen ay drone pour non mhm. mais je me dis donc c'est pas comprendre lan mooy objectif lan mooy lan mooy rôle état. Mhm. quand on dit que le rôle de l' état de prévenir c' est la prévention. Mhm. mais prévention weesuwul nga ni ndaw ñi kat samay ndaw réew ñi ngi génn ñi ngi jël gaal gi. naka laay def ba dootuñu ko def. Mhm. mooy sa politique emploi jeunesse nga xoolaat ko donc échec la amatul sax ñoom la ñuy xoolaat malheureusement pour ñoom ndax ñetti weer ku mu fi dese loo deful ci 12 ans doo ko def si ñetti weer. je pense que li li ñu desee ak ñoom ak ñun mooy réew mi ñu teg ko ci jàmm. ndax je pense que jàmm moom buñ ko bu ci lu mu amul rek euh, début de développement dana jafe te te fii ñu jëm je pense que réew mi jàmm rek la soxla. macha allah jàmm la soxla mooy ñu dem ci élection yoo xam ne ay élection yu apaisé lay mhm. yoo xam ne élection yu inclusive lay doon yoo xam ne ñëpp dañ ciy bokk ñi ci war a bokk ñëpp bokk ci. ñu dem ci élection yi ki gagné ñu joxaat ko ñu jox ko réew mi mu def passation de service bu normal comme ni ko sénégal yi daan defee voté dimanche xëy leen dem liggéey. Mhm. je pense que bu ñu doxalee réew mi ni mu daan doxee je pense que jafe-jafe du fi am. jërëjëf loolu mooy mooy mooy mooy mooy li ma xalaat ci ci ci ci émigration ci ñi yor réew mi. ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la euh, nga tàggatoo émission bi neex na wax li ci bëggoon wax dafa gaaw jeex wax lu neex. voilà j'ai <laughs> pas j'ai pas eu le temps vraiment de ah. de parler beaucoup de choses mais je pense que li ñuy wax yoon yamul ci benn. Mhm. di profito ci sa antenne di di remercier toute la coordination. Mhm. Euh, régional du parti républicain pour le progrès mhm. donc mun ma citer kenn ah. ndax région bi dafa xaw a yaatu mhm. donc mais en tout cas su ma citer euh, les coordonnateurs euh, départementaux cité naa ñëpp Amadou Makhura Dia ak ñoom Dame Babou Dem Linguère ñoom Kundul Alsane Kundul ak ñoom Ndondi Djigo bu nekk Linguère donc ñooñu su ma leen cité je pense que dañuy yóbbaale ñëpp au niveau national di réitérer suñu engagement ak suñu Euh, abnégation ci ànd ak le président Déthié Fall ci liggéey bu mu nekk parce que dafa am un projet boo xam ni il faut que sénégalais yi découvrir ko mhm. muy le le projet boo xam ni c'est pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir et ce mhm. projet là je pense que bu ñu ca yeggee ca la jeex nag nga xam ni ñëpp danañ ca bokk ku am sa programme indi bu ñu demee ci télé yi dootuñu waxtaane kii moo fi xeexoon kii moo dóoroon kële mhm. kële moo waxoon kële mais boobaa ay programme la ñuy teg sénégalais yi mën a choisir pour la première fois dans l'histoire politique jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal euh, di ko jaajëfal moom alaaji Mor Gueye ñaa alaaj laa lay woowee tey quoi c'est un plaisir aussi tamit ma ñëw ñu jàkkaarloo ci li nga xam ne moom mooy Fass ak euh, waxtaan bi neex na lool def nañ une heure ah. <laughs> waxtaan wi waxtaan waxtaan waxtaan wi neex di jaajëfal aussi tamit euh, téléspectateurs yi nga xam ne ñu doon seetaan ak suñu mbokk euh, internautes yi nga xam ne ñu doon seetaan sur Leral TV ak euh, Leral point net di jëfal sama DG moom mooy preneur de son bi moom mooy cadre moom mooy yor lumière yi Babacar Diop mention spéciale à vous di la ñaanal rek yàlla na la fi yàlla bàyyi yàlla defal la jàmm par rapport ak liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def à travers la télévision Leral TV di jaajëfalaat ñëpp euh, ñi addu ñi nekk ci àdduna bi merci aussi à tous les Lougatois de l'extérieur nos amis euh, qui sont des immigrés ñu ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne à chaque fois dañuy bàyyi xel euh, di jaajëfalaat ñi nga xam ni ñu ngi doon bàyyi xel à travers internet bi leeral point net di waat coono aussi tamit ñi nga xam ne actuellement ñoo dëkk ci Medina garage ñoom aussi tamit masaw coono à travers la télévision Louga à travers la télévision Leral TV ñoom aussi tamit danoo am problème bi ñu am moom mooy am na ñoo xam dañu faa dëkk il y a de cela ans euh, fàq dëkk la woon léegi tey ba quartier ba commencé meññ nit ñi commencé ñu bëgg leen faa génne di wax gars yi loolu aussi tamit sama cri du la autorité yi nañ jàppale ñi nga xam ne moom mooy néew gu doole yàlla mi nga xam ne moo am jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm di jaajëfalaat sama directeur Babacar di jaajëfalaat aussi tamit téléspectateurs yëpp jërë ngeen jëf